asalaamaaleykum salaamaaleykum Guédiawaye Info tey ñewon fi ci école 18 seet si ASC jamono 2 ci préparation matcham bi nga xam ne koy wara jouer jeudi incha contre ASC Jaxaay mu nek match bi nga xamante match derby la ci zone 2 euh, bi nga xam zone 2 bu Guédiawaye masib ku wax ASC Jaxaay ASC jamono 2 xamne ne derby la ci zone 2 bi nga xamanteni ne nii zone 2 bu way match bi nag jeudi la à partir de 17h fi ci stade Amadou Barry ñu ñewon fi set ci ASC jamono 2 xol nan lay préparer match boobu nga xamanteni ne nii bu nepp la na doon contre ASC Jaxaay ñewon fi xool leen seen préparation fi tay ci ASC Jaxaay jamono 2 set ci won ko ci tay ci match amical à ah, match ah, entraînement bi nga xamanteni ne tey la wara def fi tay ci préparation quart de finale ñu ngi taxaw ak coach si bi ñu def bàyyi ko mu def présentation waaw man maa ngi tudd Ousmane Sy maa ngi dëkkee Pikine Pikine tali bu mag bon fii nag depuis daaw maa ngi fi ci équipe bi euh, daaw ñoo ngi yemoon quart de finale euh, moo ñu éliminé woon par série de pénal voilà donc que euh, le fait que ñu jëlaat ma fi defe naa performance sportive la mhm. parce que defe naa su ma fi amoon beneen comportement duñ ma duñ ma renouveler waat seen confiance donc maa ngi leen ciy remercier bu baax waa population bi comité directeur bi et tout le monde parce que vraiment ñoom ñëpp daal gisoon nañ ne war naa mën a joxaat nañ ma sama chance pour ma pour ma am chance su équipe bi finale jëlal ko coupe. Hmm. donc tay course bu avant ñu ñëw ci match bi nga xam te ne moom ngay war a ak jaxay ñu def ben bilan bu ndaw rek ci 3 matchs yi nga xam te joué nga ci mi phase de poule yi ñu gis né équipe bi jé na 3 matchs dugal na 2 bi encaissé ben bi yow nan nga mën a sa bilan bu nan nga mën analyser match yooyu. Ah, en général si on su en phase finale damay xool toujours lan la soxla ci point lan point donc comme c'était un peu compliqué parce de compliqué il fallait d'abord gagner le premier match coûte que coûte man damay wax ne toujours gagner le premier match il y a deux matchs il faut ci la génn donc une chance de faire. donc li Donc, nous ñu nous a intéressé que le premier match si on ko réussiré on aura les six points Tout le monde on aura les six points et entre les les deux heures, on a joué pour gagner et quand tu joues pour gagner, tu perdre. Mais on n'a jamais essayé de chercher un match nul. Parce que nous faut 6 points. Soit nous avons une, deux victoires, une défaite, ou bien trois victoires. Donc nous l'avons abordé. Parce que pour le 4, c'est compliqué. Quoi. Mm-hmm jouer contre Beno Park da nga avec un système premier mi-temps 4-4 2 losange ñu gis en deuxième mi-temps nga changé système bi génn benn milieu défensif Dougal benn attaque troisième attaquant mu nekk en 4-3-3 mhm. en 88e minute ci lañ gis ne ci nga dugal bii ñu waral ñu laaj loolu lan moo changement effectivement parce que nous savons qu'il il nous faut une victoire pour se qualifier nul bi mënoon na baax mais il fallait ñu nek ci beneen séquence naan bu kii nul ak kii ak kii dóor kii je voulais vraiment la victoire Moi, tax ma un milieu défensif un benn offensif donc changer un peu le système B, terminer en 4-3-3 en 4-3-3 la deux milieux défensifs ça a gagné au fond terminer en 4-3-3 yokk niveau d'attaque. parce que un moment je sais que nous ñële nañu parce que nous avons lire koy match quoi moment xawoon nañ sonal mais après dañu lessivé fin temps soit je gagne soit je perds mais je dois me qualifier aujourd'hui donc loolu la woon quoi à peu près te ça a payé parce qu'après on a marqué à la 88e. léegi nag ñu ngi jëm ci match bi nga xam te jeudi la yéen ak ASC Jaxaay mu nekk match bi nga xam te vraiment ñëpp jàpp nañu moom mooy match phare mooy match derby bi nga xam te war ngeen ko joué jeudi quart de finale. donc ñu xam ne Jaxaay statut bi nga xam te moom la yore ak 3 matchs 3 victoires donc tey nan nga préparé match boobu pour jëm ci quart de finale boobu. waaw Jaxaay moom mooy favori c'est le champion départemental je pense donc c'est le favori c'est le favori vraiment c'est le favori il joue très bien au football Nous, c'est un Nous un peut-être Barcelone à peu près il joue bien au football mais nous aussi on a nos forces Beaucoup de façon de jouer Nous, ay attaque attaque placée la nuit, Nous on joue en attaque rapide donc c'est deux styles de jeu différents de toute façon on est en train de préparer ce match parce que match bi il faut qualifier phase départementale donc toujours dans laa wax booy du question dem demi-finale mais dem ci benen am benen chance football benen compétition la benen coupe suñ ko gañee nak dañuy qualifier départemental té daw fi lañu yémon ren naa pas question yem fa quart de finale nak ci nawétan dafa nek match yo xamné ne match de ah, match bo xamné ne la match yo xamné ne la détermination moo koy gañe ak rigueur tactique détermination ak rigueur tactique du lenen mais surtout détermination engagement la 100 jour boobu mom fighting le tout terrain gañe ko te aussi am na lu ma fiy dégg ñu koy wax ci quartier bi dëgg la Jaxaay dernier match yi nu ma sa joué yëpp da leen a gañe leen a xaw a sonal donc loolu moom xale yi nag ñoo màgg xale yooyu doon jooy ñoo màgg tey nag di football ci équipe bi te defe naa bii di ñëw duñ jooy quoi. voilà su ma déggee sa biir wax ne nga ñaari style bokk la ah, ñaari style bokk la yow tey course tey nan la préparé équipe am ak yaakaar na tey bu ko indee rek war na mën na gañ a Jaxaay waaw xam nga loolu aussi <laughs> dañuy wax ne mbër moom buy dem di bëri ji ay ngelaw joom du ko leeral mais nee dal c'est deux styles différents te ñaari style yoy defe bu ci nek mën day paye B, mu ngi paye bi mu ngi paye l'essentiel mais légui nan lañ leen di contenir lolu on est en train de travailler là-dessus et san sa jour ba ding ko gis wa di nga gis né ñom pour ñu développer seen jeu boobu dina leen jafé trop dal est-ce que mën na jàpp noonu tey effectif réel bu mo fi nek amuñu ben cas de blessure wala ainsi de suite. non cas de blessure amuñu ko à part deux absences yu nek éthiques te je pense que dinañ ñëw parce que lolu lolu lañ diggé won parce que fii la ñu nekk si avant ñuy dem ETICS ñun sax ñu man sax bokk naa ci ñi leen yobbu ETICS pour ñu football parce que loolu tamit mom moy bi bi quoi bi bi moy ñom ñuy avancer di dem ci équipe euh, division 2 division 1 etc etc donc mais amna yaakar bu baax baax né dinañ ñëw bu ñëw même bu ñëwul aussi parce que personne n'est indispensable dans une équipe personne tey jii ñoom nekkuñu fi on a joué 5 matchs amicaux gagné 4 yi benn bi la perdre donc cela veut dire que même bu ñu fi nekkul sax l'équipe marche voilà. voilà tey mu nekkoon fii tey coach ASC jamono 2 ñu ko doon dafa benn interview xool ko nan lay préparé masam vraiment ñu jàngat ci moom lu bare bare bari que tamit ñu xam ne tamit match bi nga xam ne moom lañ si comme ni mu ko waxee ñaari style yu bokk la mu nekk match bu difficile ci entre jamono 2 ak ASC Jaxaay donc waaw. Mhm. Euh, nit ñi xam ne lii nawetaan rek la daaw ñun fii la ñu demoon. Mhm. te ka ko jëloon tey. ka ko jëloon. ñëwaat na ñu koy xëccoowaat donc nawetaan rek la euh, fair play bi daf ci am solo jàmm bi am ci solo bu jeexee ñëpp ay ànd ak jaxaay ak jamono ak ñëpp donc nañ ko jouer ci jàmm ak paix vraiment jouer ko ci dal que le meilleur

fii ci bu nekk euh, entreneur u ASC Jamono 2 ci préparation ñu ngi fi tey ak capitaine ASC Jamono 2 di donc ñu ñëwoon fii seet ko tey moom mi nga xam moom mooy capitaine équipe bu ASC Jamono Adriano ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay maa leen di fay laay. waaw yaakaar laay la waaw di leen fay bu baax. Mm-hmm. waaw man maay capitaine maay capitaine ASC bi. Mm-hmm. waaw ASC bi nag moom ASC la quoi. Mm-hmm. ñu ngi jëm ci match bu important bi nga xam ne ñun bëgg nañ ci lool bëgg nañ ko quartier bi bëgg na ko. joueurs yi bëgg nañ ko. waaw suñuy voisins la ñuy footballal nag. waaw est-ce que tey mën nañu xam tey nga xam moom ngeen am euh, supposons que match bi deux jours rek moo si des. waaw état d'esprit bi ñu am dal rek ñun moom dal lañ ku ñu xam-xam ne dal lañu àndal te nag ñii suñuy voisins lañ. te bés bëgg na nañu bës ba tamit ñu ànd dal quartier bi ànd dal ñu ànd ak suñuy supporters dem yàlla may ñu ndam. voilà est-ce que yéen xam ngeen réellement équipe bi ngeen di bu baax sax xam nañu xamante ne ñun ak moom man bi may gone ba léegi xam naa leen te ñun ak ñoom gën nañoo daje depuis 2013. te xam naa ne nag ginnaaw suba moom dina métti trop. kon bu waxee ASC Jaxaay ak ASC Jamono doo xam ne match derby la ay match voisin la donc yow tey ban appel nga doon def ci ñaari supporters yi appel bi may def mooy man mii di wax ak yow tey ji koñu Jaxaay laay toog waa Jaxaay suñu koñ lañuy toog comme match bi amul leneen lu dul match match kese la xëy na ñi ci kaw ñoo koy ñoo koy metti la metti mais du dara ñoom ñooy àndaat may wax nag match bi moom du match dër-dër yooyu match la comme match c'est quart de finale dóor mu toog xëy na mooy xaw mais damay ñaan gars ñu àndaat dal ñu ñaari équipe yëpp ñu dem Ya, ñun nak yalla may ñu ndam ci kaw jaxay ñu ngi woon fii tey ak capitaine ASC jamono 2 ci match bi nga xam ñu ngi préparer contre ASC jaxay mu nek match derby match bu metti tamit bu ñu wara a donc diko ko leen souhaiter bonne chance fi la won ci euh, école 18 ci entraînement ASC jamono 2 euh, président bi nga xam moy président ASC pendant 2 ans ñu bon ko laaj quelques questions président ñi lay nuyu bon merci beaucoup ma ngi leen fay bon en tout cas suñu géejëway info mhm. japp nañ ne bu buñ leen nuyoo nuyu non wa gëjëw bi yëpp mhm. ñu ngi leen di fay leen dalal jàmm fii si biir quartier ASC Jamono 2. voilà président ñu lay doon laaj tey euh, ren mooy sa ñaata année nga nga nekk président ay bi. ren mooy deuxième mandat. ma nekk président ay sa 2. léegi nekk président Jamono neex na wala neexul. bon d'une part mën nañ ne neex na le fait que tout un quartier de la. seen une confiance. Mhm. c'est pas facile. e c'est pas donné à n'importe qui. mais tamit d'autre part mën nañ ne metti na naqari na ndax kàcce lëmb surtout bu tol ne jamono. Mhm. l'une des plus grandes ASC. bu nekk fii nii l'une des plus grandes ASC bi nekk si ay bu la dénkee boppam. jiital la yombul. jàpp nañ lu gën a metti. weesuwul nga nekk président ASC jamono de. nekk président ASC mën na yomb mais bu jamono xawut a yomb. na kàcce bee toll noonu. voilà quoi qu'on puisse dire euh, jamono 2 nekk na ASC bu mag fii si donc euh, chaque année nous avons xaar un def ay recrutement chaque année nous avons ne une déception à la finis donc nous mënoon xam loolu tey lan moo koy waral. bon c'est vrai merci hein je pense que loolu constat que nous avons fait. aujourd'hui partout où on pense les gens parlent de jamono 2. jàpp nañ à chaque fois que bu ñu demee ba yaakaar ne tey la xalam di neex yaakaar tas mais je pense que Dao aussi bon suñu premier mandat bi ñu ko defee équipe euh, pour une première fois mu équipe tournoi coupe du maire donc Diamono Momoko, Moko ko moo mu une première édition dans l'histoire de Diamono de dans l'histoire de Guédiawaye donc ren aussi euh, ñu nekk ci compétition nawetaan di yóot li nga xamante ne euh, phase finale bi jël coupe zonale bi donc mon nañ jàpp déception bu amee mën nañ jàpp lu yàlla tudd la mais présentement bu amee dinañu bett ndax lépp luy matuwaay jël nañ ko lépp loo xamante ne condition mettre nañ ko à la disposition de nos joueurs lépp loo xamante ne ne jàpp na ne buñ ci sukkandikoo yàlla may ñu ndam ñu ngi dox di ñaan yàlla si mbooloo wa taala mu may ñu ndam si match bi ñu jëm contre ASC Jaxaay voilà comme match boobu nga wax ni xamante ngeen bu baax muy match derby seen dig naataango ASC Jaxaay donc yow message bi nga xam ne ñu ngi koy yaa ngi leen koy passé tey te ñu ngi lay dégg lan nga leen di wax surtout seen i bon message bi may lancé waa ASC Jaxaay je pense que c'est clair message sans le bon d'abord nañu avons une commune bi Nous quartier bi nañu une dara nous avons une relation bi ma li sport di bolé. violence am ce match c'est une occasion pour montrer à tout le monde que Jakhay jamono une relation. nday ño bok bay. c'est vrai yenn si supporters des fois c'est ni wax c'est ni menace c'est ni jéego jéego day nek lo xam du dëppoo li sport bëgg mais man lancé bi nga xamantene ne appel bi nga xam ne moom laay lancé mooy nan dellu si waat xam ne seen i mag seen rak seen i frère ño bokku li nga xam mom lañuy yotu ku ko si mënti am naka am dans le fair play donc ñun ay sa jamono 2 déjà def nañ ñaari réunion avec le comité des supporters euh, sur la présence du président Gora le président du comité des supporters Taïdi may demain avec le comité des supporters et je pense que le c'est dans le cadre pour que nous, nous ne nous nous nous nous si ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ndam seen kaw ñu ko ñu koy remercier bu baax moom mi président ASC euh, jamono de donc mu nekk quelqu'un ki nga xamante ni vraiment ñu estimer ko bu baax parce que un jeune la bi nga xamante ni boot quartier donc def ay moyens di génne ay moyens pour ASC bi jëm kanam comité supporter bi seen président jiite leen muy euh, le président euh, comment il s'appelle encore Gora Fall donc ñu ngi fii tey ak moom mu wax ñu tey ñoom lan la ñuy préparer seen match bi nga xamante ni seen i dëkkandoo yi la ñuy jël ASC Jaxaay Gora ñu ngi lay nuyu waaw ah, ñu ngi lay fay. voilà donc tey ngeen di bi nga xam te ne jeudi la yéen seen dëkkandoo yi ASC Jaxaay donc match bi xam ne match derby bu ne ASC Jaxaay jamono 2 rek xel yi da am fox fu ñuy dem donc yéen tey ñuy laajee nanga ngeen di préparé seen match boobu. waaw ah, bu ñu sant yàlla julli ci yeneen bi waaw ñoo ngi koy pare ni ñu ko war a pare waaw di ñaan yàlla may ñu ndam di wax nag supporters yëpp ASC jamono 2 di leen wax euh, non violence. surtout lolu quoi ndax ñun ñëpp ñoo dëkk jamono jaxay ben lan quoi ñoo dëkk jamm rek ci xew waaw voilà donc buñu gissé sen match yi nga xam tane mu mujj ko jouer moy sen match yi ngeen daan jouer donc dañ daan giss né après match bi ak avant match bi da daan am violence bi nga xam tane c'est pas possible est ce que lolu tay yeen prévoir ngeen ko waaw waaw bo xolé légui lolu bo xolé wañé ko na bu baax ndax avant match jamono jaxay avant match dañ daan jàppante di xeex di sanante xeer waye lolu amatu ci quoi lolou ñong koy sant yalla bu baax li eh, ñi ñaan yalla dal ñu football ko ci bismillahir rahmanir rahim jeexale ko ci alhamdullahi rabbil alamin oh, oh. voilà ku xam ASC jamono la xam ne mën nañ japp ne tay ci département bi bokk nañ ci comité bi nga xamante ñoo supporter fi ci si way donc yeen tay naka ngeen ni ñëwé jeudi stade waaw lolou mom yalla ka def bul wax eh, way nel dakar jamono ñoo fi dakk azuko am na ñoo xam ne azuko jamono rek mo leen indi stade waaw li ñuy wax ñun di ko paree alxemes ak jàmm ci kàttanu yàlla di nga gis loo mës gis si Issa Amadou bari ci kàttanu yàlla. voilà ñii la tamit euh, mooy cas adverse bi ñoom boo xoolee seen seen seen seen seen philosophie ak seen i wax mooy agression ñoom boo xoolee loo mooy seen esprit maanaam dañuy ñëw euh, jaxase ba fexe ba gañe match bi donc yéen aussi loolu itam prévoir ngeen ko. ñun pare nañ ci plan yëpp. waaw match bi dañoo jaral match bi dañoo jaral li may wax chaque jour rek. match bi nekkul ay xeex ay rëng-rëng ay lii ay lii loolu amu ci xamul lu am duñu agressé ndax arbitre prix bu leen jàppee gagné leen dootal agressé ñoom ak jëmee la du ñu noog ñoom te li lay wax dañ ne match bi ñun sunu bakkan lañ ci teg barke alxuraanu karim match bi lu mu laaj dan koy def waaw loolu pour mu leer. voilà léegi yow ban message nga bi nga xam te moom nga leen koy passé ak message bi nga xam ñu ngi ñi nga xam te yaa leen jiite. waaw ñi ñoom wax dëgg yàlla déggal nañ ma déggal gi ñu ma déggal mooy ci maanaam ñun xamuñu lu bon ñun xamuñu lu lii te ñun ak waa jaxaay benn lan man biir jaxaay laay liggéey chaque jour kon defe naa violence amul foofu am na loo xam ne dépassé nañ ko am na loo xam ne tey ja dajawoon nañ 2012 dajawaat nañ waaye yàlla wis na si ndox mu sedd ba benn coow amul waaw ñoo ngi ñaan yàlla loolu continuer waaw ci kàttanu yàlla yàlla def jamono dóor jaxaay ci kàttanu yàlla. loolu la ñuy ñaan ñëwoon fii tey ci euh, ASC jamono de seet si leen seen préparation match bi donc tey ñu jël fii le coach jël nañ fi euh, président club bi jël nañ fi président comité supporter bi. vraiment mu nekk euh, li nga xam jël nañ fi tamit capitaine bi nga xam te mooy capitaine ASC bi donc ci résumé daal mën nañ jàpp ne ñu ngi si seen préparation match ku leen gis fii ñu nekk xam na ne vraiment ñii pare nañ.

ñu préparé match bi ci préparation préparation bu baax bu ñu laajee capitaine bi tamit mi nga xam mom moy capitaine équipe bi donc mom nee nañ plan psychologique paré nañ paré nañ ci plan psychologique pour préparer dem jafronte ki nga xam ñoy ASC Jaxaay coach bi aussi la même chose mom nee na amul ben amul benn jour bi nga xamante ne nekk na ci ci plan médical loolu yop machallah ñi ngi au top à part ñaari jour yi nga xamanteni dem nañu ay éthics pour dem jouer fofu te ñoom dañuy ñëwaat renforcer waat équipe bi. donc ci résumé dal mën nañ japp né donc comme jéxal nañ fi tay yaakaar ni suba tay ñi ngi dem euh, pour teudé njaaxaanaay duñu yam kasse ci ASC jamono 2 suba inshallah allah rabbi même heure ñi ngi dem feulé ci terrain jaxay pour découvrir leen ñom tamit nan lañuy préparer seen match contre jamono 2.